Diourbel ana waa seen candidat sëñ Ablaat jàngal ñu ci riwaayatu warsh salaat bu njëkk wa naadee nuuxu rabbahu fa qaala rabbi inna bni min ahli auzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahimi wa naadee nuuxu rabbahu fa qaala rabbi inna bni min ahli wa inna wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiina qaala yaa nuuxu innahu laysa min ahlika innahu camalun gayru saalixin falaa tasalanni maa laysa laka bihi cilmu inni a'izuka an takuna min al-jahilina qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin qila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin 'alayka wa 'ala ummin mimman ma'aka wa ummun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adhabun alim tilka min ambaa il xaybi nuuxiiha ilayka maa kunta taalamuha anta wala qawmuka min qabli haza fasbirinna al aaqibata lil muttaqina wa ilaa aadin aqaahum huudan qaala yaa qawmi ittaqullaha maa lakum min ilaahin xayruhu in antum jërëjëf jërëjëf jërëjëf sa ñaareel bi laaj wa min annaasi man yacbudu allaha ala xarf الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العزيز إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء فليقطع jërëjëf falyamdud bi sababin ila samaa'i falyamdud bi sababin ila samaa'i falyamdud bi sababin ila samaa'i falyamdud bi sababin ila samaa'i summa liyaqna falyamdud hal yusjibanna kayduhu ma yaqif wa kazalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna allaha yahdi man jërëjëf sa ñetteel bi laaj يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا wala tuti al kafirina wal munafiqina wa da'azihum wa tawakkal ala allahi wa kafa billahi wakilan ya ayyuha alladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin tahtaddunaha famatti'uhunna wa sarri'uhunna sarahan jamilan ya ayyuha an-nabiyyu inna ahlalna lak azwajaka allati آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما jërëjëf waaw gars yi jërëjëf a lii neex na loolu waaye ñu ànd sago rek gars yi dimbal leen rek waaw ku ne nga fekk ko ku bëgg dara dimbal leen nga fekk ko fa mu toog rek waaw fekk leen ko fa mu toog rek ngeen waaw waaw dimbal leen ji rek temps bi daa xam jërë ngeen jëf waaw moom masha Allah alxuraan neex na lool ndeysaan fekk kandaay dimbal leen rek dañu koy fekk fa mu toog rek ngeen teral ko jërë ngeen jëf kay macha allah rek alxuraan daa neex ci xol alxuraanul karim daa neex ci xol sëñ ñu may ñu eggal rek des na benn candidat des na benn candidat rek benn candidat kese moo des waaw ñu julli ci quatorze yi muy fukki région ak ñeent benn candidat moo des fukki ak ñett yi jàll nañ mu des benn candidat ah Cheikh sa gars yi de tey jii de moom képp kuy ndongo daara kontaan la ndax alxuraanu karim daa neex kan moo ci topp ku ci topp na ñëw ngir njëkkante waxtu wi ndax julli gi Moustapha Fall Matam Moustapha Fall région de Matam région de Matam Moustapha Fall moom mooy candidat bi Matam moom moo moom mooy candidat bi mujj ngeen bàyyi xel kii kar yi ak ki koy déglu alxuraan lu ci ndax ndongo daara machine la bismillah kon mbokk yi ñoo ngi jéggaluwaat bu baax xam naa ni émission am na ci salle bi loolu waaye ñu bàyyi xel ni am na tax taxkiim mooy ñoo xam ni ñooy àtte xam naa ni am na ci loo xam ni moom day mel nit ñi am nañ fu ñu jëm waaye nag àtte bi du yomb ñoo leen koy bàyyi loo xel bu baax a baax